jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak euh, tëpp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bii di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek xeex bi nga xamante ne rek amoon na foofa ca diwaan bu mbaaw nag ba deret daal di cay walangaan ku nga xamante ne rek moom moo daal di nag jam ma ngay wuyoo ci turu bas moom ci jëmi boppam rek moom moo daal di jamete nag benn xaritam buy wuyoo ci turu jaaj yi ba ba mu daal di ñàkk bakkanam ma nga dëkk nag ca diwaan bu kàmb ginnaaw nag naqar ak tiis bi nga xamante ne rek daal dina fay wàcc nag ci at ñàkkuk bakkan benn doomu aadama ba nekk ca diwaan bu kër Mbay Fall nag moo waral ñu dëkkee ci boobule koñ nag nekkati jàqle ba tey rek ñu sukkandikoo rek ci laas mi joxe boobule xibaar nañ nag papa ki nga xamante ne rek moom la ñuy jamate nag ak papa yi ñoom ñaar ay xarit lañ woon ki ñuy njort ni rek moom moo daal di faat jamono ji nag ma nga ca loxoy gendarme ñu nga daal di ubbi rek ab enquête ci mbir mi ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu wax ci Kumba Gawlo Seck mi nga xamante ne rek demoon na seeti pouponnière ba nekk ca diwaan diwaan bu Medina moom woykat sénégalais bi di Coumba Gawlo Seck nag daal dinay visité ji rek pouponnière bi nga xamante ne moom moo nekk ca Medina ca diwaan bu Ndakar mu nekk foo xamante ne rek dañ fay yi nga xamante ne rek dañ leen fa sànni wala ay waajur moom mi nga xamante ne rek daal nañu koy ràññee lool ci wàllum social kii di Coumba Gawlo Seck nag daal dinay waneeti rek boppam ci boobu lee tukki ba nemmeeku maanaam boobu lee visite moom nag jot leen a yóbbu li nga xamante ne rek moom mooy ay don lu ci xamante ni rek yi dinañ ko soxla mu nekk nag mbir moo xamante ni rek daal dina koy def nag ngir jàppale leen bu baax a baax moom nag boobulee responsable maanaam ña fa nekk daal daal nañu yëkkati seen kàddu rek di ko jaajëfal bu baax nag ci geste bu rafet bi nga xamante ni daal dinañ koy def waaye nag di daal di xam ne rek njëriñ bi nga xamante ni rek moom moo nekk ci ndimbal li nga xamante ne ñu ngi leen di ndimbale ci mbir mu nu mel nag ne daal sàkku nañ ko ci ku nekk rek ngir xale ya fa nekk rek mën a nekk ci condition bu baax tukki pa nemmeeku boobulee nga